waaw xam nga ñun suñ xam-xam dafa màcc ci wàllu diine te suñu waay jur yi nit yi diine leen ñun lu bari leen xam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fóonante na ak jabaram ci bëccëg weeru koor. kilifa gi ñu ngi lay jaajëfal ci leeral bi ñu leeral yow nitu diine nga say mhm. tamit nitu diine lañ. Mhm. kon yow li nga wax ni yonent bi mës na fóon jabaram ci weeru koor. kon yow mhm. mën na jàpp ni sa baay fóon na say nay ci weeru koor bëccëgu weeru koor.